asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñuy déglu ñu ngi leen di dalal ci seen émission stop coronavirus comme ni ngeen ko déggee tey euh, dañu euh, dalal suñu invité di docteur Myriam euh, Tap voilà. <laughs> Mhm. Myriam Thérèse Arlette. voilà mu bokk bokk ci ordre nationale <laughs> des chirurgiens dentistes du Sénégal euh, mu nekk secteur boo xam ne euh, dañ koo xamee ci pajum bëñ te it ñu jàpp ne mooy secteur boo xam ne moo gën a exposé ci wàllu feebar bi nga xam ne coronavirus euh, loolu yëpp dig ñu ci soññ wax ñu nu mu ci demee mais dama lay bàyyi nga nuyonteeg auditeurs yi présenté sa bopp présenté kuréel yi nga bokk ak kuréel yooyu lan mooy seen taxawaay waaw Rosalie gërëm ci invitation bi nga ñu bi nga ñu jox ñun ONCDS maanaam mooy ordre national des chirurgiens dentistes du Sénégal donc mooy kuréel bi gën a kowe bi euh, saytu euh, profession wu dentiste yi voilà loolu daal mooy euh, mooy suñu rôle daal moo tax ñu ñu ne fi tey ndax euh, corona bi yaakaar naa ne buñ koy xool ba xool bu ñu waxee rek naka lañ koy na ko nit di di jëlee lu ñuy njëkk a wax mooy tisool yi te ci gémmiñ lay jaar walla ci bakkan voilà moo tax nag ñu yaakaar ne dëgg la professionnel de la santé yépp ils sont exposés waaye euh, yaakaar nañ ne euh, nu mu tudd dentiste yi ñoom defe naa ci ñi gën a exposé la ñu bokk. Mhm. waaw loolu daal euh, mooy euh, li ñu xalaat man nag euh, may trésorière u ordre bi donc loolu mooy sama rôle ci ci conseil national bi. Mhm. voilà donc loolu mooy suñu suñu rôle ñooy saytu daal profession bi nu mu tëddee nu muy demee rawatina nag. jëmale ko ci euh, population yi ndax looloo ñu fi tax a toog pour seen intéret ak fexe nu ñuy euh, euh, pajum bëñ nu muy jaare ci yoon. Mm-hmm. voilà donc seetuñu si suñu confrère yi walla keneen. dañuy seet rek nu mu war a gën a mën a tëddee ci yoon. Mhm. jaar ci yoon pour intérêt wu population yi. Mhm. waaw waaw am na solo kon nag euh, balaa ñuy xuus ci waxtaan wi dañuy dem ba diwaanu Louga fekk fa suñu ko correspondant Lamine Gueye Samane euh, mu wax ñu tolluwaayu feebar bi foofu ak xibaar yi mujj ndax ñëpp xam nañ ko euh, luga ni mu duggee ci épidémie bi dafa xaw a doy waar ci diir bu gàtt rek dal di nañ fa dajale lu ëpp ñaar fukki cas ak juróom mu doon loo xam ne xëy na askan ñu ngi def lépp lu mu mën ngir feebar bi yem foofule mu toll ci bésu tey ji euh, dañuy ànd ak Lamine Gueye Samane nuyu naa la. Euh, maanaam ñu ngi lay bu baax a baax. waaw tey ji euh, yan xibaar nga ñu mën a jox soxal diwaanu Louga ak ni fa feebar bi tëddee. waaw li ñu mën a jàpp daal moom mooy feebar bi moom dafa naan la li ci ci dugaloon génnee gu ko fii ndax daka démb rek am na fanweeri prélèvement ak juróom yi xam ne jotoon nañu ko def. ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti nit yi nga xam ne dañu leen def en quarantaine boobu ak léegi euh, tey jii nag am ñaar ñi nga xam ne rek ñëw nañ ci wane ni euh, du ñu positif maanaam am ñu doomu jàngoro ji ba tax na tey jii Louga bi fi feebar bi duggee ak léegi mu ngi toll ci ñaar fukki nit ak juróom-ñaar yi nga xam ni euh, lii di coronavirus alawti ko nu leen te ñoo ñëpp nag boo ko seetloo rek ñu ngi jógee wala bokk ñoo nekk ñi nga xam ne dañoo laalante woon ak ki fi jëkk indi Euh, le 5 avril te moom xamul fan la ko jëlee xamal kan moo ko wàll ñaar fukki nit ak juróom-ñaar yu am Covid 19 ci fukki fan loolu tax na nañ euh, ragal ak njaqare bu métti métti moom ngay ñeme ko ci askan wi euh, fii ci biir njàmbur ak lu ko wër waaye nag ñi nga xam ne mooy comité régional de gestion des épidémies rawatina ñi nga xam ne mooy kilifa yi yor administration bi ñoom nelawuñu bàyyandoor ndax itam ngir dakkal lii di virus bi. Euh, si jéegu yi nga xam ne ni mu koy defee te ni mu gaawee lool tax na préfet ak gouverneur gën a yokk nag wala boo ko gën a taral euh, li xam ne mooy mesure respective yi euh, boo ko seetloo si gu préfet da la ñuy moom moo jëkk jël dogal ni marché bi nga xam ne moom ñuy wax marché réseau bi réseau bi dafa nekk béréb bi nga xam ne dafa daan bari ay ndaw bari ay nit ñenn ñi dañuy jaay portable ñenn ñi di ko réparé ñenn ñi ñëwoon di ko jënd si foofa guddi ak bëccëg dafa daan fees dal ak nit Euh, donte ba couvre-feu bi commencé ak léegi wàññeeku woon na waaye terewul ñu ngi di dafa wéy di fa daje ba tey loolu tax na préfet moom mujj sax marché euh, boobu ñu tuddee euh, réseau bi ba tay moom kilifa gi tere it Dakar na itam bépp marché ambulant mooy borom bitigu mag yi di windelu di dem ci koñ ak koñ yooyu itam Dakar la ko fi nee na ko fi gis leneen li xam ni itam bokk na ci dogal yi mooy transport bi nga xam ne vélo taxi yi moto jakarta yi ñoo ko daan def loolu amatul borom jakarta yi yow dong yow yaay nekk sa kaw moto waaye tarawul itam di nga sol masque di nga tara di nga sol gant di préfet moom nee na loolu du si dellu boo ko na si li mu teree boom ba tey préfet département bi muy door koto charette yi mu ni amul kenn ki nga xam ne léegi am nga droit yab lu ëpp ñetti nit di ko yóbbu wala ko di ko indi naka démb préfet commencé woon na si marché bi xam moom la ñuy woowee marché police Euh, tey jii lañu mu xëy ànd ak itam ay takk der ànd ak ñu bokk si équipe municipale bi euh, dem si nga xam ne mooy marché central foofu lépp li nga xam ne woon ak cantine wala bok hangar bi nga xam ne lu leen neex la ko doon ñoon defee dem ba euh, buuxante day am si si mbedd yi sax loolu tam yëpp yàq dañ ko yàqee te tey jii waaye terewul nee na leen nañ képp nga xam ne bëgg nga jaay wala ko jiraan ambulance jàpp nañu stade bi nga xam ne ñu tuddee stade Djibi Diouf ñu gënoon koy wooyee stade Watane tey jii foofu lu leen euh, foofu la ñu jël euh, pour ñu ñu bëgg jaay dem foofu. Euh, ba tey si Louga rek mu mel na confinement moom gouverneur sax moom dafa dafa dafa taxaw bu baax a baax amul billet d'entrée pour dugg amul billet d'entrée pour génn moom nee na tolérance zéro te du si bañ dara ba taxoon moom bu gouverneur El Hadj Bouya Amar. Euh, leneen li nga xam itam mën nañ ko jàpp parce que boobaag léegi ñi nga xam ñoo am feebaru coronavirus bi euh, leen doon jëlee fii di leen yóbbu Ndar wala ñu yóbbu leen Ndakaaru wala ñu yóbbu leen fële ca Jarñaañu wala ñu yóbbu leen Dalal Jàmm euh, naka fan yii dañu am na benn équipe bu xarala bu jógee si ministère bi ministère bi ñu dénk lépp jëm si wàllu wér-gu-yaram ñëwoon fii doon saytu benn béréb bi nga xam ne am na si biir hôpital bi médecin chef de région Cheikh Sadibou Senghor nee na am na fa dèjà lu toll si fukki lal yi nga xam ne mën naa dalal ñi am feebar bi matériel bi tam yemb na waaye dafa am donc yenn liggéey yu ndaw yi xam moom la doon def rek pour euh, man a euh, wéyal pour euh, béréb bi mën a di dalal ñi xam ne ñoo am feebar bi mais nee na ñoom bi ñuy anticiper ak ni muy lawee nii ci Louga xam nañ ni fukki lal barewul ba tax na am na beneen bâtiment bi nga xam ne war na mën a jël lu toll si juróom fukki lal ak ñett maanaam mën a jël juróom fukki bi ak ñett loolu tam ñu ngi koy seet waaye pour la le ma daal. am na benn béréb bi nga xam ne am na fukki lii fukki lal am na ay jumtuwaay euh, du ñuy xaar rek ndogalu niveau central bi pour que ñu mën di dalal léegi malade yi nga xam ne ñoom ñoo am coronavirus fii si biir euh, fii si biir Louga laata dañ beneen bâtiment bi nga xam ne gis nañ ko ba tey si biir hôpital El Hadj Amadou Sakhir Mbaye mën a jël juróom fukki lal ak ñett pour le moment loolu ñu mën a jàppal ci feebar bi fii si biir Louga euh, pare loolu. jaajëf Lamine Gueye Sama nekkal Sud FM ca diwaanu Louga docteur dégg nga. Mhm. nu mu campé situation bi foofu ci euh, région bi mu nekk nag lu xaw a jaaxal ñëpp vitesse de propagation bi am ci euh, feebar bi foofu en moins de di jours yow ban jàngat nga ci nga ciy def. ah waaw Rosalie man de jàngat bi ma ci war a def defe naa boobu ban tey jàngat yi def nañ ko xëj na nag léegi. li war a des walla li des dëggantaan mooy ne ñëpp xàccandoo man sama xalaat daal loolu la bu fekkee rek pour naka lañu war a aare lañu war a tere nañ ko war a tere peut-être que am na fenn foo xam ne suivant région yi dañuy xaw a hésiter pour euh, appliquer carrément li ñu war a def daal. Mm-hmm. comme maa ngi dégg léegi mu ngi naan amatul euh, enfin genre dëgëral daal dëgëral bi defe naa euh, wees na. fi mu ne nii fépp te waratuñoo xaar naan bërëb bi bareegul ñuy bàyyi nit ñi. Mm-hmm. ñuy def parce que am na nu muy demee te wax dëgg xëj na ci njëlbeen bi euh, communication bi jàllul woon noonu waaye léegi effort bi état bi def moom ñu ngi koy saluer amul benn euh, defe naa làkk boo xam ne fi mu ne nii euh, ci Sénégal umpale na la lan mooy corona ak naka lay duggee ak lu ñu war a def. pour moytu ko moo tax ma yaakaar ne xëj na xaw ma nag xelu euh, xolu yërmande la walla defe naa fermeté bi moo des. Mm-hmm. dañ ko war a appliquer parce que pour njëriñu ñëpp la xam nga boo bàyyee kenn mu def lu ko neex mu lor ñu bëri loolu tamit dafa mel ni yow da nga démissionné parce que nit ki aussi da ngay jël sa responsabilité ba mu mat sëkk tolérance zéro ndax lii. dañ koy xool xaj na ñoom ña ngi koy euh, foyantal wala xeeb ko du doon lu ñu war a xepp waaw defe naa ne lu ñuy gis ci bitim réew ci yeneen dëkk yi mhm. bu ñu yaakaar ne ñun euh, xëj na dinañ ci mucc daal waaw ba mu ba mu ba mu jeex tàkk ndax léegi dama dama yaakaar ne am na beneen xel bu doomu aadama war a am xam ne gis nga àdduna si fi ne nii ñun ñëpp benn lañ bu fekkee tam lii njëriñoom mooy bu ëllëgee ñu xam loolu ak fu ñu munti nekk ñoo xam fale la moo xam fu ñu munti nekk ñu xam ne ne doomu aadama ñëpp benn lañ bu kii euh, bu kii gaañoo fii yow di nga ko yëg fële. Mhm. voilà moo tax ma yaakaar ni même Chine ba ñuy wax naan defe na ne pare na kenn pareegul ñëpp ay parendoo moo tax fi mu ne nii dañu war a joxante loxo joxante loxo nag mooy ni ci dëkk yépp nit ñi. ñu fexe nu ñu xamee ne lii du caaxaan bu fekkee tam dañ koy foye yow mi autorité danga nga war a ferme def sa li nga war a def te amu ci xaaj ak seen ñépp ci yem amul diine bi amul kilifa bi amul région bi amul koñ bi ñépp ci yem amul plage ba parce que le plus souvent des fois yow yaay romb nga seetlu benn ki da ngay tiit léeg-léeg nga romb gis ci mbedd bi ñi yaa ngi toog comme ñu doon toogee di waxtaan di def comme lu ñu daan tàmm def te du gisuñu kenn ku leen tere loolu tam xaj na war nañ ko seet parce nii ni ñenn ñi di ko wax di ree sax xanaa virus bi guddi rek lay lay lay lay daw. Mhm. bu bëccëgee day day dem tëddi bàyyi nit ñi walla. parce que ci bëccëg gi dañ koy xeeb waaye nit ñi changé ñu seen ay euh, habitude dafa mel ni ñoom dañ ko nasaxal daal pour ñoom caaxaan la walla. Mhm. du du agsi fu mu war a àgg daal ñale la concerné déedéet. defe naa ba rek ca ñooñu lay waaw te loolu moom erreur bu mag la rawatina nag bu ñu ne cas communautaire ndax bu koy seet ba seet cas communautaire bu ñu ko jàngatee bu baax fépp fu mu munti yi am boobu stade 3 la ñuy wax maanaam dagan na sax ñu ne ñëpp dugg leen seen biir kër yi ñu tëj leen ràpp waaye ku nekk après da ngay xool li am sa dëkk nga xool xam ne lii tam. Mhm. sama économie xëj na ci informel la gën a wekkoo nit ñi dañuy xëy suba di uti nga ne leen waaw mënuma tëj ràpp dëgg la ndax duma ko antan mën na ne waaye yéen kay ku ci nekk fi mu ne nii boo newoon xamoo wala bu wala waxuñoo ko yow wala dégguñu waxuñu ko ci làkk bi nga dégg waaye léegi loolu def yaakaar naa ne wees na de. Mhm. ku ci nekk war nga xam ne lii du foo. Hmm? nga def ci nag sa kemtulaay kàttan muy fulla fulla gi mooy lan xëy dem fa nga war a dem def li ngay war a def limiter say déplacement dellu même ka nga bokkal ndey ak ku nekk toog këram loolu mooy dëgg mm-hmm. voilà man daal loolu daal laa si gis mm-hmm. moo tax ma yaakaar ni xëj na foofu la la am problème xëj na dem nañ ba benn moment ñu ne relâchement wala ñuy yaakaar ne Euh, dëkk diw la alors que euh, amul frontière boo nee woon sax même boo nee yi wala gine wala leneen ak Sénégal hmm, taxul ñuy wax rawatina nag ci biir Sénégal nga naan fii am na fii amul loolu man euh, pour man xëj na tuuti erreur la aussi peut-être ci nit ñuy communiquer waru ñu gëmloo nit ñi ne fii am na fii amul fépp la am nee naa fii léegi àdduna bi sax jógewu fi na ñëpp jàpp ne kenn muccul mhm. fépp la am mhm. voilà am na solo dañuy euh, fàttali auditeurs yi ñu dab rek ne ñu ngi suivre seen émission stop coronavirus euh, tey ñu ànd ak docteur euh, Myriam Dia Dab ñuy waxtaanee mbirum chirurgie euh, dentaire nga xam ne fajkat yi ñoom ñoo gën a exposé ci feebar bi di coronavirus euh, ñu bëgg a participer ci émission bi xam nañ numéro bi 88 628 98 98 docteur euh, tey ji ñëpp ñi bokk ci ordre national des chirurgiens dentistes ñoom dogu nañu ci benn mbir mooy fajkatu ba yi chirurgien dentiste yi ñoom ñoo gën a exposé ci feebar bi nga xam ne mooy di coronavirus mm. loolu fan ngeen ko teg ah defe naa ne <laughs> fiñ ko teg moom matul sax ñu koy firnde ndax euh, booy fej bañ moom daanaka euh, vingt centimètres rek moo lay euh, séparé ak gémmiñu ki ngay fecc defe naa loolu rek doy na waaw rawatina nag fa fa ngay feje ma nga am tufli ma nga am xëj na waaw deret ñu yokk ko ci ca yow li ngay jëfandikoo maanaam boo ko euh, jëlee daal jëmale ko ci gémmiñu euh, patient bi daanaka da ne daal moom euh, day am projection ndax moom la wax ci tubaab aérosolisation donc loolu bu bu amee virus bi xam nañ ne ci ay gouttelettes lay lay mbubboo pour mun a tis fu mu tis nag ba xas ba tege fa daf fay ne. Mm-hmm. te dina fa ne ay diir diir moo xam ay ottu mooy xam ñenn ñi sax. bari na nag fake news si <laughs> côté boobu mhm. mais dina dina fa nekk ay heures yi heures waat sax ci yenn euh, matières yi ay euh, ay fan mhm. donc moo yokk tax nag ñu yaakaar ne ñun ñii di liggéey ci gémmiñ ndax boo seetee xëj na suñu yeneen euh, naataango yi nekk ci santé daanaka ne ñoom it ils sont exposé waaye nu mu bon bon ñenn ñi am na nu muy demee mun nga wax patient bi sax mu téyee masque du dëgg. waaye ñun moom <laughs> masque bi day dañ pour nga mun a liggéey looloo tax foofu daal lañ ko wékk. moo tax ñu ne daal ñun yaakaar nañ ne dentiste yi en tout cas bu dee du ñun rek bokk nañ ci ñu gën a exposé par rapport ak euh, maladie bi waaw. <laughs> waaw kon nag euh, feebar bi ba mu xasee ba dugg Sénégal ba tey yéen seen liggéey naka ngeen koy defee est-ce que dafa am ay jumtukaay yu spécifique yoo xam ne da ngeen koy utiliser. ngir moytu wàllante gi. waaw daanaka ne ba mu dugg see ñun même avant muy dugg si ñu ngi toog di ci xalaat ndax euh, bu ñu nee ordre am na daal euh, responsabilité bu ñu am ndax ñun ñooy garant suñu profession te ñooy porte-parole aussi par rapport ak population yi seet euh, nu mu tudd population bi naka lañ leen di fejee pour ci nu mu gën a wóoree donc ñun looloo gën a tax ñu toog fii moo tax léeg-léeg sax dinañ am euh, suñu confrère boo xam ne day euh, day teggi yoon ñu dal ci kaw donc moo lay won loolu ñun li ñu njëkk a tax a toog soo koy xool léeg sax ñu ne ñu waaye yéen ñan ngeen fi nekkal population bi te temps bu ñuy xool ñan ñooy cotiser ñun ñooy cotiser fu ñu koy jëlee waaye noonu la ndax état joxuñu subvention amuñu subvention de l' donc ñun ñooy débrouiller suñu bopp ndaam. Euh, état bi lañ fi nekkal dinañ ko wax ñun état la ñuy liggéeyal boo koy xool. Mhm. waaw boo koy xool noonu la. même bu fekkee bari na ay euh, gàllankoor yu ci ne waaye looloo loolu mooy mooy li logique ñun état lañ fi toogal donc léeg-léeg tooguñu pour ma demba wala ma sàmba naam chirurgien dentiste lañu naam suñu confrères yi ñun ñëpp ay frères lañu waaye ñoom it bu ñu jéggee rek ñun dañ leen di tegaat si yoon. Mhm. parce que loolu euh, pour njëriñu. askan bi moo ñu fi tax a toog. loolu la donc ci loolu nag moo tax ñun ba mu tàmbalee rek lañ toog daal di ne ah lii lan mooy euh, saafara bi. ne saafara bi mooy ñu xoolaat ndax ñun ñoo ciy liggéey dëgg la sax euh, bu dul dara comme ni ma la expliqué comme ni ñu jógee gémmiñu ki ñuy fecc ñun am na ay matuwaay yu ñuy jël normalement bu ñuy liggéey ah, waaye nag lii ni muy ni muy lawee moo garaaw ak li yomb. Euh, jaar ci keneen te dañ koy yenu comme ni mu wax moom doxut de dañ koy yenu yóbbaale ko loolu moo tax mu xaw a doy waar donc ñun ba mu amee rek lañ ne ah nañuy def ñu ne ah nañ toog xalaat ci xalaat boobu dañ daana ko xañ na ci tiitande bi ministère euh, xaw nañu jaxasoo ña ngay xalaat leneen c'est normal parce que da nga naan lii presque médecin yi xëj na la gën a concerné mhm. mais dama yaakaar ne bu ñu xalaatoon naka lay euh, wàllee rek dañu war a ne ah yéen dentiste yi leen ñoom sax ñoo ñu waroon xëj na njëkk woon ne ah yéen est-ce que yéen a ngi xool ba xam seen liggéey bi nu muy demee non ñun tam dañoo njaboot ko te comme ni ma la ko waxee te dañu am responsabilité moo xam suñu personnel moo xam suñuy patient parce que day dem ba mu nekk comme yi dañuy mel ni ñu bokk ak yow ñu bokk ci yow ñu gëm loolu te ñun suñu liggéey fecc la te booy fecc ndaa na ko doomu aadama da nga koy def comme sa bopp voilà donc loolu bu ñu ko wékkee ñu daal di tout de ne lan la ñu war a def bu ñu xoolee xool ñu ñu inspiré aussi ci ñeneen ñi nga xam ne fi mu ne nii ñu ngi doon xeex ak kii bi te ñoom sur le champ bett bi bu paasee dangay xool nag ngay organiser sa bopp. Mm-hmm. waaw ci loolu daal la ñu wékkee daal di tëral benn protocole dem nag ba ñu insister waa ministère ñu ñëw suñu division ñu ngi leen di si euh, euh, remercier di leen ci gërëm ci lañ dem daal ak ñu bari ñu toog wër. xool xool xool ba génnee lu nga xam ne war na mën a ne yenu na maana ci loo xam ne ku ku toll stade deux boobu xaj na ay trentaine moins de quarante cas lañ amoon donc ci lañ ko génnee léegi ñu yeggale ko suñu confrère yëpp te boobu ban tey avant loolu sax ku ci nekk jaaxle nga rawatina ñiy liggéeyal seen bopp maanaam mooy profession libérale waaw ñi nekk ci privé bi te loolu defe naa jaaxle jooju euh, du dentiste yi rek mooy dentiste yi moo xam médecin yi moo xam vétérinaire yi ndax euh, euh, euh, personnel de la santé ñiy liggéey ci santé bari na ay corporation maanaam bari na ay ay kuréel yu ci nekk ñuy liggéeyal ñoo xam ne saytu ak wérgu yaram wala wérgu yaram moo xam bu nit wala bu mala yi wala leneen te yëpp dafay dafay ñoom loolu moo leen fi tax a toog voilà donc ci lañu ñu génnee daal moom la ñuy wax protocole daal di ne daal suñu confrère yi ah. lii am na donc pour aar leen yéen aar it surtout ñi ñu nar a fecc ndax askan moom day dox rek ba ñëw mbëkk sa bunt. Mhm. ñëw ne la ah am naa tolof tolof ci ay bëñ sama bëñ day metti wala lii dafa bënn walla lale léegi lan moo ciy sa xalaat yow yaay xool noo koy defee ñu ne nag léegi ku ci ñëw tam doo couper ndax dañ leen la woo yaakaar am fecc nit ki bu la wooyee tam même bu dee tam dafa bënn ci moom mettiwul mais moom mu ngi yaakaar aajoom feju du dëgg. waaw ñu jàpp ci nag ne leen moo tax contact boobu am importance téléphone di nga leen woo daal leen laaj jéem laaj saytu ba xool ba xam li leen yëkkati lan la bu dee mun na xaar dinañ la expliquer ne la demal toog xaar waaw mais nag bu dul bu dee mënul xaar maanaam mooy urgence yi boobu moom force il faut ñu fekk la ndax moo ñu fi tax a toog nit ki du am mettit moo naam yenn pandémie yi jàmbat nañ ko ba tàyyi léegi léeg-léeg bu ñëwee nit ñi dañuy euh, concentré wu ci ci problème bi ñu am nii bu mhm. pandémie bi ba fàttee yeneen feebar yi mhm. te feebar yi day continuer rawatina sa pandémie bi ndax léeg-léeg bu nit ki amee fièvre ak inflammation nit benn kii la rek yàlla rek a mën liggéeyam waaye dina am feneen fu mu jàpp mun nga am sa impression sa bëñ yi wala yëpp ay metti parce que day inflammation la donc bu boobaa yow di nga jaaxle di nga war a mën a woo seetu te luy dalal euh, xelu euh, nit mooy nga am lu la metti boo wóotee kala taamoon faj nga jot ko xam nga loolu dafa am importance. Mm-hmm. waaye ñun ba mu tàmbalee ba léegi daan na ko presque liggéeyatuñu. liggéeyatuñu ndax dañ ne déjà urgence yi ngay def si urgence yi ñun suñu matériel li ñuy liggéeyee machine la day tourner donc bu tourner moom vitesse bi mu ñëwee kii am na lu muy def day am projection même ca fa ngay liggéeyee donc déjà pour urgence yi rek. maanaam pour def urgence rek ñun lay wax ñun ñi nekk dans le privé la nga war a sol équipement moom nañu wax les équipements de protection individuelle EPI waaw loolu moom boo ko naree sol yow sa assistante sa secrétaire patient bi bu yegsee ka mu àndal xam nga am na ay euh, protocole bi tëral na ay fa nga war a jaar yépp mm-hmm. pour mun ko fekk parce que tam bu bu amul beneen euh, solution il faut nga faj ko mais yooyu yëpp da nga ko war a éviter te loolu yëpp boo ko xaymaa xool ko xool ko ci naka la tëddee ak nu mu war a demee euh, daanaka liggéeyatoo da ngay li ngay def yëpp doo ci dugal dangay ngay dépenser plutôt nga dugal quoi que ce soit te yow da nga yor ay charge muy benn ñaar li ma liim léegi équipement yooyu da nga ko si da nga si dul sax jot. dafa naqaree jot. dafa fi mu ne nii naqaree jot yemu ci naam benn ñaar ña ko yor ma jox la kii bu ndaw firnde bu ndaw maanaam dañu am masque yi ñuy wax nii bii mooy masque chirurgical. am na mhm. ffp maanaam boobu moom bu bu ñuy liggéey ci conditions yi moom la ñuy sol ndax protéger wu protéger patient bi. mu ngi daan jar boîte bu cinquante bi je cinq mille. Mhm. léegi quarante deux mille quarante mille. lañ lay wax ci pharmacie wala. déedéet am na ay fournisseurs am na ay kii. Mhm. waaw ñoom daal ñoo ko yore léegi di def seen spéculation. voilà maanaam di yéegal euh, kii enger yi def lu leen neex donc yow loolu boo ko xoolee rek xam nga ne mooy ne ak euh, tëj leen ndax ñun <laughs> duñ ko mën a supporter. Mhm. duñ ko mën a supporter ndax cabinet yi ni mu tëddee ndax mbirum santé la. léeg-léeg nga gis euh, bu di ñëwee dañ naan waaye yéen daal euh, médecin yi xam naa ne daal euh, dentiste yi moom am na étiquette bu ñu leen tegal maanaam yaakaar biñ ci yaakaar mais nekkul. ci jamono maanaam seen liggéey nekkul di demee na mu waroon demee. consultation yi dafa wàññeeku. urgence kase ngeen di def. voilà déjà dem dikk bi wàññeeku na quand mhm. mooy seet transport yi duñ ko wàññeek yooyu ba pare. maladie ci seen bopp et dañ leen di comprendre ñoom ci seen bopp dañu tiit donc dañuy dañuy wàññi dem ak dikk bi ñëpp ko wàññi. Mhm. donc sooy xool presque ñun deux mois ngi ni liggéeyuñu normalement. Mhm. liggéeyuñu normalement donc ba mu tàmbalee aussi dégg nañu euh, monsieur le président Macky Sall. wax na daal ba nee na ñëpp bu kenn jaaxle daal du ñu fàttee kenn dinañ seet nu ñuy fexe daal ba gàllankoor yi du du bare daal. Mm-hmm. nañ toog rek tey ñun nit ñu ne toog rek tey rawatina bu ñu nekkee ci santé dañ ci war a am wàll. Mm-hmm. moom li nga wax léegi war nañ ci dugal suñu loxo. moom laa la expliqué donc presque ñun liggéey nañu un mois presque à perte moom laa la li nga war a sol teg. yow danga koy multiplier parce que sax muy assistant bi sax on peut comprendre secrétaire yeeg accompagnant yi ko dugg patient bi yooyu yëpp da nga war a jël ay mesures te jéem nañ ci ne jéem nañ ci nekk donc loolu boo ko xoolee pour que yow li ngay li ngay dabu amul nag ku ñëw danga ko war a convaincre bu dee du urgence mu dellu ndànk këram. Mm-hmm. surtout sax téléphone. fexe daal lii ak lii lan la ba mu expliquer la nga ne ko lii pour l'instant wala euh, ñëwal nga jëlagum lii ak yooyu mais toogalagum. waaw mais ni muy euh, demee nii à ce rythme ak charge yooyu yëpp est-ce que te kenn euh, état d'urgence kenn xala xamagul kañ lay jeex feebar bi kenn xamagul kañ la fiy génn kañ lay génn ci àdduna yëpp est-ce que yéen a ngi prévoir manque à gagner bu mu mën a indi est-ce que du am ay conséquences est-ce que yenn cabinet yi du ñu dem ba engloutir tëj loolu yëpp yéen a ngi koy natt. bu baax ñun koy maa ngi lay gërëm sax ci question bi ndax xam nga ñun euh, liggéeyu santé bokkut ak liggéey koo xam ne ne euh, sa wax nday yomb ñun nous sommes pas des communicants. moom comme bu dee mu ne waxee noonu. waaw suñu liggéey du wax jëf la ñun dañuy faj donc duñu nekk di werante xëccante xëccoo fii xamuñu ko dëgg la waaye tam. ñun dañuy tiit bu ñu gisee ñu ngi naan kii de résilience bu ñuy lii dañ naan waa ñun en fait fan lañ ñu boole gisuñu fenn fuñ ñu boole man a xëj na mun naa am fàtte la moo tax tey dañuy interpeller sax le chef de l'État mun naa am nag xam nga jaxasoo bi comprendre nañ ne fu mu ne nii yëpp jaxasoo mm-hmm. dëgg la waaye tamit booy xool da nga war a xool sax ñi gën a exposé ba pare teg fa baaraam moom laa la expliqué ñun avant ñuy wax sax cas ñun suñu liggéey demeetul noonu na nag te loolu mooy privé bu ñu ne tam exercice libéral du ñun rek bu ñuy wax ñu ñu ngi dinañ waxaale médecin yi waxaale euh, vétérinaire yi waxaale ñeneen ak ñeneen moo xam technicien de la labo ñëpp daal moo xam ñun rek suñu kuréel euh, dentiste dañu waxaale ñi nga xam ne si si suñu profession corporation lañ leen di boole c'est la famille dentaire mooy euh, prothésistique ah assistant dentaire yi xam nga ñooñu ñëpp suñu liggéey fi mu ne nii euh, demeewul noonu. Mhm. donc ñun nu mu bon bon nous sommes un peu des on va dire des chefs d'entreprise même si on a moins de dix employés on va dire ça comme ça suñuy ñi ñuy liggéeyal matuñu fukk dëgg la waaye nag dañuy gérer entreprise donc bu dara duggul yow da nga yor ay charges rawatina loyer yi rek boo ko waxee nee naa la ñaari weer a ngi nii presque dara duggul waaye kii nga war a fay waaye moom it mu ngi lay déglu fu ñu koy jëlee dara duggul yow li nga doon euh, génnee saxul liggéey da nga ko euh, def ba ñeenti yoon ndax mun a aar ñëpp te loolu avant tout ay médecin lañu ay docteur lañu loolu duñ ko faye mm-hmm. waaw mais dañ naan da ngay dem loolu mooy sa participation sax booy xool da ngay muñ dina ñëw ba buñ demee ba yëpp yi xaw dal ndax léegi on ñu ngi jour ji plus ñaata. plus de 40 jours. Mhm. war nga nag gestu waaw kon yéen tey ji yan canaux ngeen jéem a exploiter pour euh, que ñu bàyyi leen xel ci li nga xam ne nag mooy impact économique laal secteur yu bëri. voilà donc euh, benn ngi ni parce que aussi booy xool moom laa la wax ñun booy seet boo nee ordre état lay liggéeyal kon ordre war na dépendre en quelque sorte euh, ministère bi saytu lépp luy wërgu yaram. Mhm. ca lañ bokk lu dëgg. du ne nag ñu fa dem jéem nañ fa dem waaye mooy li ma la expliqué rek jaxasoo am na tuuti ndax même ñoom fi mu nekk nii ñu ngay euh, xool daan nu ñu war a def pour euh, seet naka la ñuy euh, fejee lii nii. Mhm. dal ci ñëpp dal ci Sénégal dal ci àdduna gi yëpp. du mhm. dëgg waaye nag fiñ toll nii. Euh, toog wax parce que nit da nga war a am ci li may wax nag ci wolof moom duma ko mën a ki synergie cest à da nga war a am benn euh, reflexion wala yow na ngay xalaatee dafa war a boole ñëpp mm-hmm. booloo pencoo mm-hmm. waaw pencoo bi xaj na moo xaw a des wala du ñu du seetlu parce que naam du ma ne amuñu ay confrères yu nekk ci biir ministère bi mais du même chose du même impact parce que ñoom ñun li ñuy dund ñoom mënuñu ko xam à mhm. cent pour cent ñun ñu koy dund ñoo ko mën a xam te comme exercice libéral la publique yi quelque part te nu mu bon bon ñoom ña nga ca peut-être seen cabinet yi même pour ñoom EPI te mhm. tey aussi loolu bokk na ci li ñuy interpeller dañuy ñaan seen dara bañ a manqué ndax defe naa bu ñuy sédd ci ñoom lañu war a tàmbalee mooy li ñu li ñu wax sànq si njalbeen bi si njalbeen bi moom ca ñoom lañu war a tàmbalee ndax ñoom direct ak gémmiñu malade yi. yaa ngi wax penco léegi. Euh, euh, ci euh, fan yële ñu génn njiitu réew mi mu ngi doon def ay consultation woo ci ay rappeurs ay communicateurs traditionnels ay mm-hmm. politiciens. Mm-hmm. te sànq yaa ngi ne yéen dentistes yi. Mm-hmm. vous êtes en tout cas si vous n'êtes pas les premiers exposés parmi les premiers qui sont exposés est-ce que ci waxtaan woowu woowoon nañu leen ci li nga xam ne mu ngi ko doon def. woowu ñu moo tax ma ne la xëj na fàtte la moo tax tey ñuy interpeller. ndax dafa jot xam nga loo gis rek day jot bu jotee nag fi mu ne ni jot na waaw dentiste jot na corporation bi les gens souffrent peut ñu ngi téye seen ngor daal di ne ñun xej na suñu rôle mooy fecc waaye tam baraa nga ne naam nga ne fa mm-hmm. du dëgg waa ñoom it dañu am famille dañu am ginnaaw waaw da nga am njaboot mhm. am lépp. lan ngeen di xaar exactement lan ngeen di xaar ñu déconcentré soins yi ci hôpitaux publics yi wala ñu jox leen ay indemnité qu'est-ce que vous attendez. li ñu xaar c'est tout ndax li may wax mooy li ma la ne boo nee àdduna nga ne lii njëkkeewul fii am na feneen fu mu njëkkee ñooñu am na ay matuwaay yu ñu jël. kon presque du du copier sax loolu xel la da ngay jël nga boo demee nga xool ñoom lu ñu def nga xool nag say réalité bañuñu ko. waaye danga koy da nga koy adapté mu méngoog yow sa sa réalité mais nga nga adapté ko doo toog rek daal di euh, fatt xëj na say nopp wala gëlëm wala di xoolee benn côté rek fàtte ñi ci des du baax ñun bu ñu toogee ñu gis euh, plan de résilience très bien ñu war a waaw fan la dentiste yi nekk boo nee santé ñu ne ah dinañ améliorer infrastructure yi xool tamit plan de lutte nga ne très bien 64 milliards ok nga dem ñu ne euh, waaw Euh, chef d'entreprise yi wala ñii nekk ay PME PMI ñun yooyu yëpp xamuñu ko ñun faj lañ xam hmm? moins de dix employés xamuñu ñun daal li ñu xam mm-hmm. ñii tam dinañ leen jox ay ndàmpaay dinañ leen jàppale pour économie bi tuddee ok yow ñun xaj na du économie mais ñun fan lañ féete fan lañ féete mbaa fàttewuñ ñu mais est-ce que boo leen toogee tamit di wax fàtte nañu fàttewuñu est-ce que sax du leen mujj fàtte est-ce que kon euh, c'est pas moment ordre bi ci mm. boppam bu jël des initiatives euh, précises dem fi mu war a dem wax ne carrément c'est ça le diagnostic du secteur ah. secteur bi mu ngi souffrir ah. te buñ ci jógul xëy na dina mujj faatu est-ce que kon jotul ngeen jóg dem fi ngeen war a dem jóg nañu dem nañ fu ñu war a dem ànd ko ànd sax ak suñu yeneen naatango maanaam inter-ordre dem nañ ba ministère ministre bi aussi Euh, accepté nañu recevoir ñu ñëw audience waaye jot bi boobu mu ngi tar ñu ngi ci kii couvre fa heure yi ba ay 19 heures ndeysaan ñi ñaa fa fees del loolu moom dañ koy seede waaye nag bu ñu toogee ak moom mënuñu ko wax suñuy suñuy mbébét ak ñun fi mu ne nii li ñu metti ak li ñu tiital mënuñu ko ko wax eggul naam nee na waaw dinañ def plan boo xam ne ne dañuy euh, ànd pour réfléchir ndax yéen ñu ne ordre dëgg-dëgg yenn war a nekk les premiers conseiller du ministère te muy dëggit waaw te muy dëggit boo nee ministère de la santé ordre yi moom la ñuy liggéeyal liggéeyal ñu keneen ndax bénévolat la ñun dañ ciy nekk léeg-léeg sa kër dinga nga toog ay ñoo ba ay yenn heure yoo xam ne ne mënuñu ko sax wax pour di xool nooy xoo nooy nooy saytoo sa sa profession ak yan kii donc en plus da ngay yor nag say confrère ci kii ñu ngi may dégg mu ne ni kii waaye yéen lan ngeen wax lan ngeen def yéen ordre mu mel ni yéen a yéen a jéemul dara daal donc loolu foog mu leer aussi dañuy jéem ba sonn waaye dafa mel ni euh, ministère xëj na amuñu jot wala pour ñoom euh, xëj na gisuñu ne euh, profession dentiste yi dañu exposé te yaa ngi wax xam nga boo toogee nag ba nga ne communautaire cas communautaire mooy jeex la dans le sens foofu moom n'importe kii mun na ko yor donc yow yenn métier yu exposé yi ñoom waroo xaar sax ñu naan la waaye ñun de ñu ngi nii loo wax si ñun danga leen war a woo mm-hmm. ne leen yéen sax dan ngeen xalaat yan matuwaay ngeen war a jël ndax yéen rek mun ngeen lawal virus bi du dëkk. waaw moo tax ñu yaakaar ne xëj na fàtte la wala ñàkk euh, jot la wala peut-être aussi xam nga nit ki booy liggéey nga yor ay conseillers yu la wër conseillers yooyu dañu war a am sensibilité yépp mooy yoon ñi la gën a jege. il faut que ñun jógee ci kuréel bu nekk bi sa ministère yor. ndax sinon xëj na bu dee ñoom ñëpp ay médecins lañ xëj na dinañ gis problème mu médecins yi duñu gis bu dentiste yi. man daal loolu laa yaakaar. Mhm. waaw waaw euh, bu weesoo conséquences yi nga xam ne yéen a ngi koy dund mu metti ndax coronavirus bi. Mhm. Euh, yéen ci côté riposte bi nga xam ne euh, nguur gi ministère de la santé mu ngi koy wéyal. Mhm. ban pàcc ngeen ci am ban pàcc bu weesoo aar seen bopp aar aussi ñi leen di faj est-ce que amoon ngeen wàll ci ñi nga xam ne ñoo wër ministre bi di ko conseiller walla am na loo leen yaakaar ne buñ ko ci yokkoon rek ci li ñu xas a taxawal ba tey ji affaire yi dina gën a bar. Euh, gaw ma ko wala kon bu amee tam ñun yëguñu ko. Mhm. moom laa la wax lu wees daal euh, protocole bi ba ñu fexe daal ne leen ah jot na xëj na ñu war ko saytu ñu dem ca division ba toog wër nag ñëpp toog ñuy ku nekk jox sa xalaat yokk ci ñu mun a génnee boobu protocole ñu ne stade 2 la te loolu ñun lu ñuy conseiller rek la suñu confrères yi amuñu benn dogal bu ne leen tëj leen lu dëgg. donc léegi ku ci nekk ku fi mu ne nii ñi nekk seen biir cabinet yi di liggéey ñu ngi liggéey à risque. pour ñoom ñenn ñi foog nañ même boo solee yëpp sur blouse yeeg yëpp am na facteur de risque am na facteur de risque parce que boo ko buggee continuer di liggéey comme da daan liggéeyee wóorul lu dëgg donc ñenn ñi ñu ci bare conscient de ça ndax ñu ngi topp ndax nee naa bu ñu nee pandémie da nga war a xam ne ah man de dafa am ci kuréel bu ma bokk donc bu desee lu dul yëkkati kàddu dama leen koy bàyyee lu dëgg. moo gën aussi des fois nga toog comme la nature ñu naan bu kenn waxul léeg-léeg nga gis ay individualité gis nga ah, xam naa ñu dem ci benn organe de presse waaw wax lii wax lii kenn du ordre moo leen nii du ministère moo leen yónni loolu dañ ko war a éviter il faut que ñu kam xam luy euh, jox euh, ku nekk daal lu mu war a def fi mu toll nii comme ni li ko président waxee combat la. Mhm. mooy li nga combat kàddu gi dafa war a nekk benn. lu dëgg pour euh, profession bu nekk. kàddu bi dafa war a nekk benn donc dentiste yi bu naam bu amee xel buñ ci bugg a yokk wala leneen nañu woo daal seen kuréel wax ak ñoom ah ñun de lii lii lii waaye nag li des ba des mooy ne fi mu ne nii ñun dentiste yi dañoo jaaxle dañoo jaaxle parce que dafa mel ni dañ fàtte ñun de wala loolu boog lañ foog mun na am nag xëy na am na ci kii ñun ñoo mënul euh, décrypter xëy na am na fuñ ñu boole mais ñun mm-hmm. yeggeewuñ ñu ko daal mm-hmm. moo tax. ñu ne daal lii xëj na occasion la pour ñun daal ñu yeggee ko. Mhm. xëj na président bi jot ci walla peut-être ministre bi jot ci naam il est fi mu ne dafa jax wax dëgg yàlla waaye tamit. nit ki li nga mën daal mooy dem ba fa nga mën a sës. Mhm. waaw waaw mais pour euh, en attendant problème yooyu di saafaralu ji nga xam ne ñu ngi peut résister di def seen liggéey euh, pour bañ a ay perte yooyu lu leen euh, sonal. Mhm. est-ce que du doon baax aussi ngeen demander ay équipement de protection individuelle de la part des autorités. Mhm. su ko defee ñenn ñi mën a def seen liggéey te duñu aar seen bopp dinañ aar seen bopp. fa lay yegg ndax euh, buñ ne crise ñu ne combat hmm? da ngay jox nag arme sa combattant yi du dëgg voilà dans terre bi combattant lañ de ndax comme je mun na ak. Euh, virus bi sax mun na exacerber bu nit ki amee tàngooru yaram mun na mun na répercuter wu ci gémmiñ moo xam ci siñ siñ yi la moo xam ci bëñ yi la donc dentiste bi da nga ko war a aar jox ko équipement boo buggul mu law il faut que bi moom da nga ko war a sax di saytu di xool na mu ngi sol normalement ak euh, mu ngi mu ngi mu ngi def euh, liggéeyam na mu ko war a defee te loolu boo ne ah am na cabinet publique ñu ngi nii ñu ngi foofu ci hôpitaux yi benn lenn am na ñoom du ñu mën a faj ñëpp du ñu a faj ñëpp bu ma koy saytu dinañ xool dentiste yi Sénégal peut-être moins de six cent lañu cinq cent quatre-vingt-cinq à peu près bu ñu basé wu ci chiffre 2018 yi ci biir nag foofu peut-être moins de deux cent cent et quelques cent quarante-trois yooyu ñooy ñoo nekk dans le public tout le reste est dans le privé donc sooy xool métier la boo xam ne majorité bi mu ngi ci privé bi lu dëgg mhm. donc ñooñu tey moom laa la expliqué deux mois ngi ni liggéeyuñu correctement nga rawati ne leen yow pour nga liggéey am na geste yow warul def te pour nga liggéey lii ak lii ak lii ak lii nga war a sol pour que mu aar la yow aar ki ngay faj du dëgg loolu état bi moo ko war a jox. Mhm. mais def ngeen demande à l'état. def nañ demande moom laa on nous avait laissé comprendre que loolu yëpp ça allait Euh, pris en compte dinañ si bàyyi xel dinañ ko kii waaye xëj na dañoo déggagul rek xëj na dinañ ñu woo ndax ñu gisaguñu déggaguñu ndax ñun ñooy ordre. Mm-hmm. bu amee tam defe naa mënuñu ñu bañ a yëgal pour que ñun ñu ñu ñëw xool naka lañ ko war a euh, dispatcher ak distribuer lenn am na état bi du ko mën a jox peut-être deux cent cabinets privés yi ma liim sànq mais nga jël ay matuwaay yi nga xam ne moom lañ jël ci yeneen dëkk yi. dañuy def ay ay euh, cabinet de référence. maanaam dañuy cibler ay cabinet même bu dee ci yenn kii la nag ñu ne fii dentaire lañ fiy def ñoom ñu équiper ko ba mu war bu boobaa nga ne sax privé yi tëj leen seen cabinet yi moo gën a wóor ci yéen moo gën a wóor ci askan bi lu dëgg léegi nag tëj ngeen ay indemnisation dina leen fa fekk ay ndàmpaay ndax yéen it da ngeen ci war a dund ci ngeen di dund ci ngeen di fay itam ñi ñi ngeen di liggéeyal nee nañ yenn saleer yi dinañ ci bàyyi xel ndax ñun dañoo jékki-jékki rek ah interdiction de de licencier ah bon waaw dans le privé non ñun jël nañ suñu matuwaay dañu nekk cabinet yi tëj leen ñi mënul tëj nga def euh, nu mu tudd chômage technique ñu dem déposer inspection du travail dinañ ko déposer léegi toog di xool nu ñuy def ak suñu suñu suñu bailleurs yi ndax dañuy commencer di roñ suñu bagages yi di lem ndax ñun c'est une profession respectable duñu toog nag ba ñu ñuy fekk di ñu di ñu di ñu déloger Mm-hmm. waaw loolu moo am c'est une réalité c'est que tamit dëgg neexul te des fois tam da ngay mën a wax moom laa la expliquer ñun duñu waxkat ñun dañuy faj. Mm-hmm. donc du ñu nekk jigéen du ñu ay rappeur. <laughs> waaw <laughs> ah, da ngeen di faj waaye ñu xoolee ci côté malade bi nga xam ne xëy na mu ngi yëg douleur. parce que du ñëpp xëy na ñoom ñoo yor seen numéro téléphone euh, dentiste ku leen di faj ak yooyu. bu ñu ñëwee ci cabinet gisuñu kenn est-ce que yéen a ngi def de sorte que kii. ki ki feebar en plus de la douleur bu ñëwee du fekk ne tëj na aussi mu paas yàq paasam pour neen delluwaat ak xol bu tàng loolu yëpp noo leen koy gérer. xam nga loolu foofu yooyu mooy bokk na ci difficulté yi ma yi ma waroon relever parce que comme ni nga ko waxee bu jëkk sax daan na am boo tëjee nii ak Sonatel daan nga mën a ñi boo jëlee congé wala leneen ñu mun la balancer say appel mais xam naa ne man sa fe deux ans bi mu ko essayé c'était pas possible y avait des ñoom dinañ xam du tax mais du ñàkk y a d'autres ñoom ñii muy waa orange muy waa leneen buñ leen ko laajee rek état bi bu leen ko laajee am na nu ñuy def ñu ñu relier ñëpp comme ni mu la wax boo amee ay cabinet de référence feneen noonu lañ def ay numéro la moo xam vert la moo xam boo amee méttitu bañ foofu ngay woote day am ay permanence ñu ñu dalal la mun na am sax wala ñu relier ko xaw ma duñ koy defee mais ñeneen a nga koy def donc dama yaakaar ne du du du lu jafeñ. Mm-hmm. waaw du lu jafeñ pour ñu nekk ci comme ñi am ñooñu xam nañ nuñ koy euh, jaarale ba mu war a mën a ne mais dina am lu mu war a mën a demee ku ci kii jot naam sax sa sa propre euh, médecin sa docteur ngay jot mu dalal la. déglu la ex nga wax ko man sànq ci su rek laa si jóg na ko ma woone ma man samay doom dañuy ñëw mën expliquer ko ndànk mais comprendre na est-ce que seen bëñ yi day mu ne déedéet seen bëñ yi dafa bënn ma bëggoon rek mën na ko fi mu ne nii lii ak lii ah dëgg la docteur donc am na lu ñuy dalale seen xel mais doo toog day tiital leen mm-hmm. ne leen doo leen dem ci dentiste loolu à part la dentiste bi xam na nu muy liggéey xam na nu mu war a liggéey xam na lu ko war professionnalisme ba mu nga fa waaw te comme ni mu waxee faj moo ñu tax a jóg donc nekkuñu fi pour pour lor askan bi. déedéet mais face à ñi nga xam ne face à la douleur bëgguñu dégg li docteur wax li ñu gis rek daal mooy ñu dem xëy na ñu wekki leen wala euh, wàññi seen douleur ñu naka ngeen di gérer mbir mi ak ñoom. xam naa bu ñu yeggee dinañ la woo bu ñu la woowee tam bu dee tam mën na nekk yow da ngay jël matuwaay bi yëpp léegi douleur bi ça dépend lan la laaj tant que mun nga ko soulager am na ay kii yu ñu def mooy traitement d'urgence. am na ay matuwaay ci garab wala ci leneen lu ñu mun a def sans exposé la sans exposé suñu bopp yoo xam ne dinañ fexe nu nuy douleur bi di dale wala bu fekkee mënul téye loo xam ne ne ur moom nañuy wax urgence mais ñun on fonce combat la dañuy dañ lay faj duñ la bàyyi noonu mm-hmm. waaw loolu mooy yoon moo tax ñu yaakaar ne eh, eh, fi ñu toll nii war nañ ko regrouper regrouper ko ci ñëpp parce que tamit loolu dañ koy mën ci kaw nga mun a xëy dem am loo mën a demee mais fekkee yow di nga dem xëj na yor nga oto waaye boo xoolee xëj na sa sa assistante wala sa secretaire wala sa femme de ménage du benn moom déjà pour mu jógee fi mu jógee transport yi wàññeeku na du mun a yegsi wala bu ñu ñëw xëj na dina dugg ci euh, transport bu xaw a bare nit risque yi day comprendre nga ni ma la wax parce que mhm. risque yi munoo ko cerner yow nu munti jël-jël sa matuwaay toujours am na benn risque buy des moo tax ñenn kii ñun yooyu yëpp am nañ yenn yi yoon nañ ko yenn kii am na ñu continuer liggéey mais seen seen responsabilité la parce que ñun amuñu maaxaama ne bu yéen ñëpp tëj leen loolu du suñu rôle du ñun ñoo ko war a wax état moo ko war a wax. Mhm. moo xam fan la toll toll ci combat ban stade la e, e, bu dee stade trois effectivement la y a des cas am na responsabilité bu mu war a jël mais responsabilité bi. dafa dafa lan tamit nga war a bañ a bàyyi askan bi ay bëñam ñu bañ ko faj loolu tamit du du wax yi mën a xaar dina xaar mais loo xam ne mënul xaar dañ ko war a saafar. Mhm. waaw yaa ngi ne ordre bi moom moo gën a kawe ci wàllu profession bi te recommandation yi ngeen joxe mooy ñit ñi jël seen matuwaay. Ah. ñu ko mën a tëj di gérer urgence kase ñu gérer ko ndax feebar mu ngi fi. Mhm. te vous êtes les plus exposé mhm. mais toujours ci corporation boo gis ci organisation boo gis kuréel boo gis am na ci ñoo xam ne dañoo illégal. maanaam dañuy dugg ci profession bi. <laughs> te amuñu kilifa. maanaam ñi illégal gëm naa ne amuñu pour déglu ordre ah, ñooñu ñu ngi jël ay risque mën nañu lor seen bopp lor aussi seen i patient ah. tey ji yéen ban taxawaay ngeen am ci profession ci exercice illégal de la profession bi exercice illégal moom ñun ñu def dañ ci lu ñu mën bañ nañ ko sax ba am na procès bu ñu ki yoon naam euh, ci corporation bi lañ xaw a bokk ay techniciens yu ubbi te dañ ne fii ay chirurgien dentiste ñoo war a ubbi ou responsable cabinet donc ñoom ñu ngi exercer sans autorisation voilà rawatina nag ñeneen nga xam ne exercice clandestin bi moo rawati maanaam fii ci Sénégal bari na fii lu ma wax ay ay baraak laay wax sax yoo xam ne ñu ngi fii de dañuy buddi de dañuy faj de dañuy poose de naka li ñuy liggéey yàllaa ko xam amul mesure d'hygiène donc kooku nga xam ne ne en temps de paix bu jàmm yépp amee liggéey normal amul pandémie amul dara na muy liggéeyee doy na waar lu ñu war a seet la xeex ko hmm? rawatina na tey bu ñu nee pandémie nga ne yow da ngay xeex pour que contamination bi bañ a law defe naa état am na taxawaay mais pour loolu mu mun ko xam moom laa la wax il faut nga am benn euh, disposition boo xam ne moom la wax ci tubaab du clivé doo am une attitude clivée wala une une attitude clivante maanaam doo doo xaaj-xaajlu di di seet benn côté fàtte ña ca des boo dee santé la xeex la yeneen feebar yi ñu ngi fii jabet bi mu ñu continuer ñoom sax niñ naan euh, ñoo gën a nekk personne à risque mm-hmm. donc ñooñu dañu war a continuer faju du pour ne corona bi dafa ñëw rek yeneen feebar yëpp dafa wér loolu amul donc ña doon am mettitu bañ ña ngi koy am urgence yi fii Sénégal la ñu ngi ci Afrique balaa ñuy jóg ñun xam nañ suñu bopp foog mu metti walla mu tar mhm. ngay doog a jóg pour ut ku ci ku ci ku ci ku la ko saafara donc ñun tey booy xool d'ailleurs ñu ngi ci gis suñu ay euh, confrères ñu ngi wax nañ ci public bi fi mu ne nii urgence yi dafa yokk dentaire ay xale ak mag dañuy ñëw ak ay lex yu néew yeeg yooyu ba ñu naan est-ce que duñu xool euh, ndax am na corrélation ndax am na lien daal lu tax mu donc bu yokkoo ñoom ñi nekk ci privé ci public bi mais ñoom mënuñu faj ñëpp mënuñu faj ñëpp bañ naa ko ba ne la booy xool c'est une profession mooy liggéey euh, boo xam ne ne privé yi ëpp euh, public bi donc tey yow lii am na population bi foog ñu faj seen bëñ mettitu bëñ ku ko amul xanaa moo mun a toog yenn yi di ko muñ mais nag pour ñun ñu mun a liggéey du ñu dem noonu à main nue mooy dem ca ca kii ba guerre ba doo yor benn arme. Mhm. loolu xaru la lu dëgg. Mhm. ñun nag fas yéenew ñu xaru fas yéenew ñu aussi euh, feebar bi di laaw jaaree ci ñun te duma la dog fi mu ne nii ñun xam nañ ne remonté nañ am nañ suñu confrère boo xam ne ne dañ ko def quarantaine parce que dafa nekkoon en contact ak benn cas bu positif naam yàlla après 15 jours négatif na mais c'est pour dire. xam nga à quel point nu sommes exposés te tey binduñu ñu fenn yow buñ bu doon sax ci saytu comme euh, pays yi ma wax ñu woo ñu distribuer ñu boo ñu distribuer sax xanaa nga fexe. Euh, prix bañ ko doon amee ñu mun ko am prix bu néew. Mm-hmm. mais indemnisation mënul ñàkk. waaw sànq yaa ngi wax ci hausse des prix yenn intrants yi masques yi mm-hmm. yooyu yëpp te mm-hmm. du du yéen rek ko. surtout euh, euh, ordre de médecins aussi. ñu ngi ciy wax ne dafa yokku paquet gant bi yokku na paquet masque yokku alors que c'est pour un besoin de santé publique. yéen ban xeex ngeen di def ci loolu. quel est le combat que vous menez pour que vraiment prix yi toll fa ñu tolloon wala dafa am luy expliquer le fait que prix euh, yokku moom laa la wax ñun jéem nañ donc bu ñu nee cellule de crise la dafa am crise day am sax benn budget bu tegee yooyu yëpp dinañ ko jënd teg xool nuñ koy yeggee yeggalee euh, ñiy liggéey waa professionnel yi waaye ñun dañoo déggagul dara gisaguñu dara xam nañ daal naa ndax des fois def naa gis naa ci télé ñu wone ay kii kii mais grossiste yi ak public bi la la amal affaire amul affaire ak privé xam nga. Mhm. te ñun mënuñu leen euh, ma naan mënuñu leen ci mere wala jàppee leen ko moo tax ñu yaakaar ne tey c'est la responsabilité de l'État ndax ñoom ñu ngay kii fu nekk am na sax peut-être une je sais pas une euh, comment on dit ay nit yu nekk fii yu jéem a. Euh, saafara loolu ñu ngay commencé daal di defar fii ay gants defar kii mais comme ni ma ni ma la ko waxee rek professionnel santé yëpp nga war a aar. Mm-hmm. nga war a aar ñu continuer faj askan bi parce que feebar yëpp ñu ngi fii feebar yi làquwuñu xejal corona feebar yaa ngi fii corona dafa ñëw yokk waaw dafa ñëw yokku waruñu fàtte yeneen. feebar yi waruñu fàtte yeneen feebar yi war ñu fàtte yeneen professionnel de santé yi dañuy xool ñëpp ba pare. woo ñëpp pencoog ñëpp déglu leen lan mooy seen euh, problème fi mu ne nii lan ngeen am comme euh, problème naka ngeen ko mun a saafara lan ngeen mun a yokk ci xeex bi ndax ñun dañuy gis message yi ñu ngi jàll mais ñun war nañ mën a tam yeggee dara askan bi. Mhm. brosse à yi. Mhm. est-ce que mun nañ ci wax brosse à yi ñu ngi ci biir kër yi. naam yi est-ce que da dëkk ak ku koo xam ne même bu dee quarantaine lañ ko wala comme ni ñu wax parce que. booy mhm. seet nee nañ corona Euh, bu ñu nee cent yow mun nga ko am mais mun nga des sa kër. Mhm. parce que am na signe yu war a tax. nga mun a woote pour que ñu jëlee la sa kër mun la yóbbu. yóbbu hôpital mbirum brosse à dents yooyu sax laay bëgg nga wëy. ndax euh, xam nañ ne kuy brosse ñu ci bëri bu fekkee une famille benn pâte dentifrice <coughs> la ñuy am. kay brosse dee jël pâte kole ko ak. dentifrice bi su fekkente ne peut-être virus bi mu ngi woon ci brosse bi xëy na dina laal kubéeru ba dentifrice bi xej na de ak yooyu noonu du xej na loolooy am sax mhm. parce que c'est très contagieux comme ni ñu ko waxee ci ay gouttelettes donc tout ce qui est humide ci kii ca lay jaar yow yow boo jëlee def ko nii ci kaw brosse bi ci ngay brosse après boo paree da ngay raxas noonu teg xam nga wowul dara le fait mu nekk humide boobu virus bi bu nekkee foofu day gën a am euh, résistance dina fa toog lu yàgg nga ñëwaat dendale ko yeneen euh, brosse mhm. xam nga li ma wax. donc loolu yëpp dañ ko war a xool. Mhm. donc ñu ngi ci ba pare de temps en temps ñu désinfecter seen seen brosse à dents yi. Mhm. c'est important. waaw léegi euh, gis nañ ne tamit bu weesoo li nga xam ne moom moo leen manqué ci riposte bi pour jàppale leen ndax conséquence économiques yeeg yooyu yëpp. Mhm. Euh, gis nañ yeneen organisation di def ay spot publicitaire wala di def seen ay. vidéo di jàllale ci réseaux sociaux yi di sensibiliser yenn ordinational national des chirurgiens dentistes lan ngeen defagum ci loolu ci wàll boobu est-ce que yéen a ngi ci dara pour euh, jàppale. ñu ñu ngi ci kawam ñu ngi koy xool comme li mu la wax waaye xam nga boo boo xawee jaaxle tam. mu mel nii yow bokkoo ci xeex bi da ngay xaw a toog xoolaat sa bopp ndax bu ñuy toog ci plateau yow yaa ngi nii nag ñëwoo ñu ñëw toog du dëgg. wax nañ la tuuti lii concerné dentiste yi te ban tey ñun li le reste naka lañu fas yéene combatre moom laa la wax ay cabinet de référence ñu continuer di faj nit ñi faj sans risque. te tamit ñu laaj état mu saytu tout ce qui est illégal par rapport aux dentaires parce que tey caaxaan faaxe te foofu lay jaare di mun na fa jaare virus bi gën a law loolu moom foog mu xool ko parce que dafa bëri li ñuy wax ni du caaxaan ñun xam nañ li ñuy wax dafa bëri loolu moom bu ci jógul tey naam dentiste yi nañ jël seen responsabilité ak seen mëtuwaay daal ne ñun mun nañ sacrifier wu comme li nga wax combat bi loolu ci ci côté boobu la bokkee ñun dinañ toog naam dina am luñ luñ ko yëgee dëgg la waaye indemnisation du mun a ñàkk du dëgg du mun a ñàkk mais ñun on est prêt on est là dégg nañ sax état mu ngi nee na dafa bëgg recruter pour 6 mois baax na xañ na doyul mais déjà am nga ay personnels yu nekk fii à disposition ñun dañu waat suñu waat mooy lan na na na askan bi wér rek waaw lu ñu ci mun a def rek ñun ñu dellu ginnaaw. waaw mais tamit nañu état bi gëstu daal. Mhm. xam naa laaj bu mujj parce que waxtu wi jot na. Ah. mooy euh, ci sa jàngat en tant que professionnel de la santé. Euh, yan leçon en tout cas yan jàngat la ñuy mën a jëlee ci feebar bi boo fekkente ne génn nañ ci te dinañ ci génn sax hmm. euh, bu neexee yàlla di tubaab di wax quelles seront les leçons apprises lan lañ ci war a mën a jëlee loo xam ne dina jëmale suñu réew kanam jëmale le système de santé kanam voilà muy jëmale kanam mooy ne dëgg la mooy li ma la expliqué sànq dañ koy gis ci réew yëpp professionnel de santé du kuy wax du ko mën a wax ku mën a kaas mën a défendre boppam loolu moom yàlla mayuñu ko faj la may donc booy xool ñun dañuy li euh, ñuy faj xam nañu fu ñu jaar formation bi euh, elle est assez élitiste dëgg la mais bu ñu demee ba nekk euh, médecin mooy ne kii bu ñuy naan di tooñ ñenn chef religieux yi c'est les médecins des âmes maanaam dañuy faj âme yi ñun dañuy faj carrément le ko donc c'est c'est c'est un peu man muy du point de vue peut-être buñ koy xool ci diine walla ci leneen jàngat bi ma ci am sori na bëri na te di ñaan aussi. mu doon loo xam ne day wër ànd àdduna képp ñu xam ne ne doomu aadama benn lañ te xëj na loolu la ñu jàngat boobu la ñu war a jël génnee ko ban tey bu ma gisee ay werante bu ma gisee ñuy jël euh, nit ñu ñuul ñi di leen saaga walla di leen nasaxal ma ne kon yii xëj na am na lu des. Mm-hmm. comprendre gu ñu vraiment. te buñ koy seet sama diine laa mun a xool man maa ngi déglu suñu pape François euh, saa yu yëkkatee kàddu rek ca côté boobu la jëmee benn nañ injustice yi na takk nañ xoolaat waaw munuñu munoo dem yow nga ne man damay yor dara manqué wu ma ma dem ñeneen yi nañ des rek ci guuta mënta nekk dañu mën a àndandoo ñëpp génn et je crois que fi mu ne nii ñu ngi génnee ay vidéo yu bari moo moo xam faatu jom ay nit yu réfléchi ci kii ay ñoom Felwine sa fan yi rek ay articles yu génn ay jeunes Afrique nga gis ne ñëpp a ngi saytu mais na ci ñëpp bàyyi xel. Mhm. doomu aadama benn la ci ci maam yàlla ñun ñi gëm benn la ci maam yàlla ñun ñaan ñeneen ñi aussi dem ba xam ne fi mu ne nii ñun ak seen pexe ak seen moyen yëpp ñëpp ci bokk yem fi mu ne nii ñëpp a jaaxle. ñu delloo si waat suñu xel si yàlla te joxante loxo. Mm-hmm. kon nag dam lay jaajëfal di la gërëm di la sant docteur Myriam Arlette ja mm-hmm. may fàttali ne danga bokk ci ordre national des chirurgiens dentistes du Sénégal euh, ñuy rafetlu sa teewaay ci émission bi ak qualité réponse yi aussi di jaajëfal ñëpp ñu ñu doon euh, déglu jox leen dig daje ëllëg bu 16h jotee ci beneen numéro bu stop coronavirus. stop coronavirus. stop coronavirus Sud FM fas yéene bay waaram ci lii nga xam ne mooy taxawaay yi ngir coronavirus bañ a law ci biir réew mi bés bu yàlla sàkk bu ñeenti waxtu jotee ci ngoon daañu leen defal tolluwaay yi nga xam ne moo am ci biir réew mi taxawaay yi ci war a am taxawaay yi ñu ci indi ak lépp luy méngook moom ngir lii di coronavirus bañ a law ci biir réew mi kon nag bu 16 jotee. bu ko kenn wuutee ci Sud FM 98.5 yéen yi tamit di ngeen mën a bokk ci stop coronavirus su ngeen wootee ci 88 628 98 98.